xam maanaam lan nga gis yan acte moo lay wan ni mais acte la ko doxalee dé ba léegi acte yu mu posé sax dangay gis ni yar ak teggin la wane euh, premier acte bi ma njëkk a marqué bi mu posé en tant que président de la république mooy suñu diggante ak euh, yaayam suñu yaayam itam mee ngi njaay te pourtant ah. mooy président mu gis ni kooku am na problème mobilité mu bàyyi fa protocole dem ci moom korité bi ñu gis imam bi ñëw di ko nuyu si mu jóg tee loxo bi may ko loxo war na ko ni euh, lu ma doon doon président yaay suma kilifa fii ndax yaay imam bi du dëgg waaye fii tamit gis nañ wàccee boppam gi summi ay dàllam fonk fi nga xamante ni mooy le lycée ak cadre bi mm. donc euh, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel euh, doivent euh, collaborer et pour man li mu def lu rafet la mm. dem fekki leen sàkku si ñoom ñaan et puis tey relation boobu ñuy am non seulement diggante doom la ak waajur mais relation diggante kilifa ak kilifa. Eh, ab président dafa am kilifa am na papa am na yaay am na ay kilifa. donc pour man eh, loolu mooy cëslaayu Sénégal. Mm. Eh, tey euh, religieux yi am nañu rôle boo xam ni moom la moom la ñuy joué maintenant. si li paase ay considérations politiques moi je n'entre pour man l'État gère le culte. ñii dañu am benn rôle ak benn responsabilité dans dans les affaires de la cité. c'est hmm. tout à fait normal et mu moom mu mu def ko. voilà mu def ko moom mu dem Tivaouane aussi. exactement noonu que tey au-delà de li ñu symboliser. Hmm. bu nga xamante ni. Euh, c'est de grandes communautés au Sénégal tey am na benn rôle boo xam ne moom la ñuy jouer ci ci ci wàllu islam dëkk boo dem am na ay réalité ay nous dans nos réalités kilifa diine am nañ benn rôle d'ailleurs la preuve. Hmm. moom ci ñiy ànd ak moom. ay sëtu Cheikh Ahmad Bamba ñoo ci nekk. ci ñi mi àndal ay sëtu euh, El Hadj Malick ñu ngi ci. sëtu Baye Niass mu ngi si. Mm. donc le plus important mooy quels sont les rapports et les relations. Mm. lii geste bi mu posé wane na ni que les relations sont parfaites. ah dana fay coow li wax ji. waaw mais Sénégal da ko wax la rek séntu woon lii. non non ko wax la ama def nañ fi émission am ku ne la waaw. jomaay daa war a dindi sikkim bi lii laa la ma ne ko waaye may ñu. man maa ni sax sikkim laay wut moi j'ai pas choisi de m'appeler Cheikh Omar ou d'avoir une barbe et puis euh, l'état c'est euh, on peut pas dire que nous on a une république laïque euh, tey moi je je l'attends à ce que mu dem ci ci ci église bi te dina fa dem euh, pour ton <laughs> information mm. quand tu demee si côté njaga ñaaw yeeg yooyu on a des musulmans et des catholiques donc ouais. n'a jamais posé un problème au Sénégal notre premier président qui est catholique de de confession pourtant il a eu des rapports huilés avec euh, Sëñ Fallou suñu maam ak euh, Thierno Seydou Nourou Tall on a vu les rapports yi Abdou Diouf amoon ak Baye Lahad Mbacké ak maam Abdou euh, on a vu donc loolu moom lu lu lu lu normal la lu normal maintenant yenn yi waxu politique la woon rek hmm. waaw toi commencé ñi ay salafiste lañ jihadiste yooyu yëpp c'est des vocables yoo xam ne pour man amul importance hmm. Sénégal ba ci ni ngay jullee sax dañ ciy wax pour man c'est des petits détails hmm. euh, la foi est intimement lii à la personne seen une question d'ordre hmm. d'ordre privé ñun lañ doon waxtaan booy Abdou Diouf kenn xamul lu mu doon waaye <laughs> même loolu lañ doon wax kii kenn xamul lu mu doon est-ce que hmm. jullit la mais yooyu pour man euh, un président de la république moo uuf ñëpp moo yilif ñëpp moo tax dama doon woon preuve bi sëñ Baara ah ñëwee palais fekk si ki nga xam ni mooy Ablaye Wade Ablaye Wade wàcc si cëru président am jox ko cëru Euh, taalibe nekk taalibe donc pour man euh, Bassirou ci acte bi posé nit ku am dal la nit ku yarloo et puis euh, ñi ko xam ils savent que c'est c'est c'est et puis noonu la mën a mel nag parce que quand tu viens de de, de, du Sénégal des profondeur euh, que tu bi grandi dans un environnement où les gens sont sont sont très corrects où les gens sont très courtois où les gens ont certaines valeurs noonu rek parce que olof Ndiaye ne nit ki li nga li li li li nga namp rek ngay gàll donc ndaw la. et euh, nañ ko ñaanal te gunge ko. te yaakaar anam gi mu fa demee ah sobriété apparemment ci ñi ko gunge uuteeg la daan am. oui mais sobriété fépp prestation de. serment bi mënoon na ko def stade bu ko defoon stade Diamniadio du ko defoon du xaj mais il a choisi de mettre empreinte am boobu la posé. et même sur euh, les passations de service on n'a pas vu les bongos les sa ndey ko liggéey donc euh, voilà. Hmm. la est au boulot moom Sénégal mooy yaayam yaayam daf ko yónni te yàqamti ko. te ko yàqamti d'ailleurs loolu moo tax xam naa le PM Ousmane ko moom xaarut. daar daar building administratif dem li xool ba xam. oui mais building ba am ak moi je l'encourage sur ça. Ah. je l'encourage ñu jékki-jékki rek Ousmane Sonko ne cëpp wàcc hôpital ah ouais man loolu laay xaar ci moom c'est pour de visu nga mën a gis parce que quand tu gouvernes aussi euh, tu aussi de la proximité c'est-à-dire ne pas rester sur un bureau mais parfois de temps en Mamadou Dia le faisait ah da jékki-jékki na cëpp ci benn service pour xool pour xam et puis dafay marquer benn empreinte maintenant pour problème building administratif oui. Euh, je crois que le gouvernement du Sénégal daf ko réfectionné woon c'est ça bi ci li ma d c'est depuis les années cinquante lañ ko tabaxoon Euh, réflexion bi ça a suscité beaucoup de débats am na sax incendie après euh, bi euh, 43 milliards juste pour waxuñu. ay abonné on n'a toj tabaxaat de 43 milliards ci bâtiment bu tax <laughs> kon naa ah, bu ñu def 43 milliards moom xanaa. dina fonctionnel quoi donc nag au-delà de sa visite yenn service de l'État yi nga xamante dañ doon dem louer c'est vrai que y a des services de l'État yoo xam ne sont en location et sax daa mel ni benn genre business dafa am ñoo xam ne dañu am ay ah. bërëb am di ko louer état bi état bi di leen ko fay ah. ñu mel ni ñoom ñoom Sénégal ñoom lay dundal ko en quelque sorte système boobu dañ ko war a dindi donc bu fekkee building am na euh, assez eh, d'espace pour mën a caser yenn yenn structure de l'État mais pour man ça permettra de rationaliser les fonds de l'État ça permettra euh, li nga xamante ni koppar bi doon dem ci location ñu mun ko bañ a def xaalis boobu mën nañ ko duggalaat feneen donc pour man c'est c'est une bonne chose pour marquer son empreinte euh, ci li nga xamante mooy la rationalisation de dépenses publiques d'autant plus que réew mi soxla na rationalisation oui koppar yi am na fu mu ko bokk na ci alal réew mi passeport diplomatique yi maa ngi dégg maître Moussa Diop mu ne xam na DG boo xam te am na ci juróom. ah waaw mais euh, maître musa Diop bu ko waxee moom il a été DG. il a été dans l'État pendant des années je crois qu'il a fait six ans ñëpp rafetlu liggéeyam ci wàllu Dakar dem dikk xam naa nag Dakar dem dikk war nañ ko gën a ñoŋal. parce que mm. fan yi am naa suma benn xarit Salif Ba. Mm. dafa dem dem euh, Vélingara mais bu leen convoqué huit ba 11h midi mënuñu am bus fi ñu taxaw lañ taxaw di ram. waaw euh, yooyu war nañ koo gën a def surtout ak Sénégal dem dikk bi saa a été une bonne chose. Hmm. pour euh, connecter interconnecter li nga xam ne mooy mooy. Sénégal gox ak gox maintenant. Hmm. Euh, pour les passeports diplomatiques. au Sénégal ça a toujours posé un problème. dans le durant le régime socialiste on a parlé de passeport diplomatique chinois li ko indi woon mooy ay chinois yoo xam ne dañu faatu ñu fekk lañu yor ay passeport diplomatique ay nigérien mun a yore passeport diplomatique passeport diplomatique pour lan la. Mm. parce que quand tu boo yoree un passeport diplomatique. Euh, da nga am lu ñuy wax sax déjà immunité diplomatique. waay c'est-à-dire cër bi nga am ci état Sénégal moom ngay daanaka sax représenté kon tey loolu nag pouvoir discrétionnaire wu président la. Hmm. am na ñoo xamante ni seen rang permettre na leen ñu am ko. ba ñi xam ne ñoom ñooy ay ministre ñi nga xam ne ñooy ay diplomate ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci yenn service ko yaatal nag ci ñooñu voilà maintenant même passeport dañ ko doon politiser ah. parfois ay nga ñëw jox ci gars yi ah parfois sax euh, sëriñ su ndaw si ku si nekk yor na benn euh, influenceurs yi wala saagakat sax wala n'importe kii mu mu yore ko donc pour man dañu ko war a premier mesure sax mooy ñu arrêté ba pare man gëw ma sax ab ministre sax nga toog naan waaw sama passe non mais attends le passeport est lié à une fonction. Hmm. fonction boobu jeex na. ay la yéen jarul xaar parce que les gens voyagent sans xam nga tey dafa am passeport diplomatique am passeport de service par exemple. waay par exemple les maires de de de commune amuñu passeport diplomatique. Hmm. te pourtant tey on parle de la diplomatie des villes waroon nañ xool sax nan lañ leen di dimbalee ba ñoom ñu mën a am. yooyu mën a dem ak dikk dans le cadre de la coopération par exemple mais mm. maintenant euh, tout le monde peut avoir un passeport diplomate on a vu énormément fii ci ci régime bi lu jëm ci wàll passeport <coughs> je crois que war nañu ko càmbar et puis pourquoi pas sax jël en décret arrêter tous ces